waajtaay waajtaay yooyu nag bi ci nekkee lu ma ñaareel ñetteet ci la président Abdoulaye Sylla yéege liggéey bi ak ni mu ak importance bi mu am daal di ci am yéene ak taxawaay bu rafet boo xam ne yéene jooju ak taxawaay boobu mu andi suñu jataay bii tey yéene taxawaay bi bi njëkkee ñëw yaakaar naa ne war naa fukki at yi war naa dox alfam dina gën a leeral ñi ma fekkoon ci saax ne ma dafa am gan ñu lay seet xamu nu mu demee ma génn keroog ma ngi leen recevoir kër googu ñu wax ma njaay jong wala na bokk toog ñu wax li Ablaye si la wax ak yéene ji ak lépp ñu maan ak ñoom ñoo ko si abas si abas xamal ma ne ma yëgoon naa ko waaye maa leen yebal ci yow àndal ak ñoom liggéey bi moo wax leen ni ñu ko bëggee wax leen dëkk bi ni mu toll wax liggéey bi importance bi ci nekk ñu defee ko noonu nañ ko waxee woon lañ man lépp ñu def ko liggéey bi doo doxin rafet bi ko defee man ñaareet wala ñett la sama jarbaat bii di sama xarit di Assane Sylla ab di rek président Abdoulaye président Abdoulaye dénk ko société bi muy directeur bi bi mu ñëwee nag mu yokk ko lool yàkkali ko lool gën koo defar lool ndax Pastef bi ci dëkk bi ak yéen a xam gi mu xam yéen ji président Abdoulaye am ci dëkk bi waaye nag moom itam nu seqal suñu wàllu bopp muy sama jarbaat di sama xarit tax liggéey bi mu yokk ko lool liggéey bi nag ma di leen xamal ne biñ ko tàmbalee ba léegi président Abdoulaye jub jubee li muy wax waa ECOTRA mooy nañ arrêté opération yëpp dañu arrêté liggéey bépp matériel bépp dem Touba noonu it lañ koy defee bu ñëwee ci man lañ dañuy ñëw balaa bala ñoo tàmbali dañuy fay ñëw ñaari yoon ñetti yoon seet si fan la ñuy nan la ñuy liggéeyee seet si li gën a taxaw seet si barab yi fi ñuy gaare seet si liggéey bi lépp bu ñëwee li ñu may wax mooy président Abdoulaye dafa wax ne nañ ñëw bu ñëwee ñu déglu la nañ seen wax ñu wax ñu def ko te man itam amul lu may wax lu weesu li sëriñ bi wax li sëriñ bi wax laa leen di wax mooy nan defar dëkk bi balaa gën a sëriñ Tuubaa yi ñëw defar gi nag ni mu gën a baaxee lañ koy defee ñoom waaye ko tara ndax dëkk bi du ñu fi dëkk bokk waa dëkk bi bokk ci waa dëkk bi di dem fépp di dem ci kër yëpp di jaar ci mbedd yi ñun ñooy xam li mu gën a soxla ñu nekk ci liggéey bi nag li ma koy waxee rek ah président Ablaye def na wàllam ba mu jeex directeur Assane def na wàlla ba mu jeex waaye mboolem personne Ecotra ak ba ci yéen journalistes yi ñu fi tey kenn ku ne def nga ci nga mën ndax personnel bi ñu ngi nii yàgg naa ko wax bis bu ñu bu liggéey bi ba ba ñu leen wax ne nii la ko suñ bëggoon wàcc ngeen amuñu waxtu amuñu heure amuñu guddi amuñu bëccëg waxtu bu ma soxlaa danaa ko wax Abdoulahat Abdoulahat wax ko kilifa yi ingénieur ñoom ñëpp ñu ngi fi Abdoulaye ngi fi Karimo mi ngi fi Arona mi ngi fi ba ci seen mbokk yi nga xam ne ay étranger la ñu ngi ñu ñëpp li ñuy wax mooy bu ñu wàccee dañuy ñëw ma wax leen fan lañu ñu war a xëy ak naka liggéey bi demee bi su set dañ woo ne ma dañoo demoon ci ñiy sëkk suuf si ñu leen wax waaye dañ leen nañ déglu sëñ Cheikh dem leen ci sëñ Cheikh ba mu wax rek loolu la ñuy def te loolu moom lañ leen digal moom leen directeur Assane digal moom leen président Abdoulaye digal kon nag dama leen di sant ñoom ñëpp tam biir personnel bi yëpp la sant te tàmbale yi muy ingénieur yi muy Abdoulahat mi dox sama liggéey ñoom muy ñëpp mu nekk ñu def loo xam ne loolu la rek doyoon na jëf ndax mbedd mi ñu tax nekk mbedd central la moo xam ne mi ngi jëg kër sëñ Sidi Moxtaar jëm kër daanu mel kër sëñ Muntaxa mbedd mi moo ko boole te moo dox diggante Madiyaana ak Sàmm dox diggante Madiyaana ak ak ak Jantu fa ba ngay am dem àgg ci te li jóge ba mbedd mi mboolem du jógee ci côté Ndar Louga Kébémer bu ñu ñenn yëpp wattiwaan foofu la ñuy jaare ji buñ ñu duggee ci dëkk bi bu xatee bu ñu jógee Daaru Musti bu ñu dugg ziar rek foofu la ñuy jaar ci suuf ci mbedd mi ni ñuy doxal ñu jaar ten menn mbedd ci mbedd yi la ak yeneen mbedd yi nga xam ne ak central la ñu daan day am importance ci dëkk bi mi itam dem nañ fa liggéey bi ba liggéeyal Sëñ Muntaxa ci université bi daaw jéeg lañ ko terrassel mooy li wër jumaa ja li wër poste santé bi ren jii am ña nga fa dee ko terrassé mu fi jógee dañ ko seeti kër Sëñ Tuubaa gi nekk daal mën naan ay gan ñu war fa dal da ña nga fay terrassé mu fi jógee dañ fa dem seeti ko ak dëkk bi yëpp nag amuñu fi ñuy yem dañuy liggéey bu ñu egsee dañu mën naan ñun ñoo ngi ci loxo dana digal ba màggal gi tey ñu ba mënatuñoo liggéey ngir màggal gi waaye bu dul loolu amuñu heure amuñu wax fi fi ñu yem kon nag ma di ko xamal ñëpp ne Ecotra bu ñëpp defoon na ñoom kon léegi dëkk bi yomb jàll ba léegi rek directeur Assane mi ngi may wax ay yéene yu président Abdoulaye am ak xalaat yu am yu am solo yoo xam ne li muy ñaan mooy ñu dem fi di gën a jëm kanam di gën a man kattan gi di yokk bañ man koo def waaye buñ ci àggee danañ xam ne dëkk bi ku am na ci wàll xam ne caaxaan defu ko waaye président Abdoulaye yéene bu rëy na lool euh, at mu jot le président Abdoulaye Sylla Euh, yónni ma ci njaboot gi bu waxtu yi jotee pour que li nga xamante ne moom lañu sant ñu wax ko sëriñ bi ren 2023 nekk juróom-ñaareelu et ECOTRA ak le président Abdoulaye la di def saa yu màggal jotee le premier safar mu ne activité boo xamante ni bi Ecotra doon na ko def na ko aj matériel bu mu am ak personnel am bu mu am nañu jël ñëpp lépp ñu yóbbu ko Touba teg ko ci loxo sëñ bi sëñ bi moo xam nu mu ko bëgg a jëfandikoo mu jëfandikoo loolu ba màggal gi bu ñëwee mu mën a nekk ci condition yi nga xamante ne moo gënal sëriñ bi noonu mu ko daan defee at yi passé noonu la amee taxawaay bi ren ba tax na euh, bi ñu jubee de premier safar Ablaye yónni ñu fi le président ne dem ngeen wax ak sëriñ bi mu wax leen lan la gën a bëgg ci liggéey bi ngeen taxawee noonu jox ñu ndigal na chantier yi ngeen amoon yëpp ni ngeen ko aj ni ngeen ko daan defee suñu matériel yëpp na ngeen ko yóbbu tubaa suñu ingénieurs yi suñu techniciens yi suñu conducteurs yi bu kenn des na ñëpp ñëw Touba nekk leen ci waawu sëñ bi lu mu leen digal ngeen def ko président Abdoulaye Sylla yónnee na lu ma téeméeri nit cent personnes yu jógee suñu bureau yi ñëw fii tubaa président Abdoulaye Sylla yónnee na diggante ay engin ay camion ak lu ko xeetoo lu mat juróom benn fukk ak juróom équipement le président Abdoulaye Sylla yónnee na fi ñeenti pompe hydraulique yoo xamante ne bu ci nekk am na débit cent cinquante mètres cube heure yenoon nañ fi benn hydrocureur boo xamante ne bi dafa autonome tout terrain bu am mband boo xamante ni bi dana jël trente mille litres président Ablaye Sylla nee na loolu doyul mu jënd équipement yoo xamante ne dañ koy utiliser ci nettoyage lu mat juróomi téeméeri brouette ak junni peel ak junni pioche te ko ci loxo sëñ bi nee na moom bu sañoon lépp lu yi yittewoo kàttanam may ko ko lépp moo koy def nañu nag yéen ñi nga xamante ni yéen laa yebal bu ngeen demee bu leen bëccëgal bu leen guddeel nekk leen ci waaw sëriñ bi lu mu leen sant waxtu mu leen ko sant li ngeen ci mën na ngeen ko def li ngeen ci mën na ngeen ko jéem ba ñu ñëwee ba léegi ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ŋànk entreprise bi ñëpp ñu ngi fi DG Assane Sylla mu ngi nii suñu directeur yëpp ñu ngi fi directeur de ressources humaines directeur financière directeur des études ñëpp ñu ngi fi chef de département yëpp ñu ngi fi ñu yore infrastructure ak ñu yore building bâtiment ouvrier yi kenn desul ñëpp ñu ngi fi liggéey yi ñu amoon faneen yëpp dañ ko aj pandant trois semaines yi jiitu màggal gi ak semaine bi nga xamante ne moo topp ci màggal gi ndax liggéey bu war balaa màggal gi ñëw dinañ ci taxaw bu màggal gi weesoo liggéey bu war pour delloo dëkk bi ci cet ga mu wooro dinañ ci taxaw ba bu ñu demee li nga xamante ne mooy li war ci cet ci dëkk bi ñu bàyyi ko ni ko sëriñ bi bëgge donc loolu sëriñ bi Abdoulaye Sylla nee na li mu def lu mu xeeb la lu mu xeeb lool la waaye nee na lu ko yàlla may lu ko yàlla may moomu ci dara lépp sëñ Tuubaa ko moom lépp xalifa bi sëñ Muntaxa moo ko moom ndax sëñ taxa mooy sëñ Tuubaa nee na jotuñu si sëñ Tuubaa nag yow cheikh bi Cheikh Abdou Latif Mbacke nee na lépp yaay borom te rafetlu na lool ni nga xamante ne ni nga téye njabootam rafet rafetlu na bu baax ni nga téye jabootam ndax ba ñu ñëwee ba léegi taxaw gi ñu taxaw yombal gi nga ñuy yombalal suñu toogin ci dëkk bi weesoon na suñu jort weesu na suñu yor te lool rafet na lool te lépp Ablaye la yég na ko ndax nettali nañ ko ni ñu téye di ñu jàppe ba tax na ouvrier yi nekk yëpp ku si nekk la ngay def xool nga koy liggéeyee cawarte nga koy liggéeyee bëgg sëñ Tuubaa nga koy liggéey amu ci kenn ku ciy tricher ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla dolli dëgëral la sàmm la bu baax di la yon yabante ci sëriñ bi na ko ñu ngi koy ñaanal wér di ko ñaanal fan bu gudd ni mu jiitee njaboot gi njaboot gi yëpp kontaan nañ ci yàlla na ko yàlla dool di dëgëral yàlla dugal ki yàggal ko ci kanamu njaboot gi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax di sàkku sa ñaan di sàkku sa ñaan di sàkku ñaanu sëriñ bi ba yàlla may ko li nga xamante ne mu ngi koy def ba tey mu am yéene yal na ko yàlla may ba at yii di ñëw bu ci dugalee loo xam keneen du dootu gis loo xamante ni dana ci mën a jot ba di ko ci liggéey ci dëkk bi yal na yàlla may ko loolu ñu ngi koy ñaan ñu ngi koy ñaan di wax sëñ bi ñaanal ko bu baax a baax a baax a baax a baax Ablaye Sylla amul moo ko wax boppam nee na lu mu am moomu ko sëñ Tuubaa ko moom nee na lu ma am sam moomu ma ko sëñ tubaa moom liggéey bu may liggéey sëñ tubaa lu ma ci am sant naa ko suñu borom lu ma ci am rek sant naa ko suñu borom ndax lu ma am moo ko moom donc ñu ngi la koy dénk mu ngi lay dénkeen encore seen bopp boppam ngeen dolli jàppale ko sëñ kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax a baax baax taxawaay di gë profité ci occasion bi gërëm sant personnelu Ecotra yëpp gis nañu seen taxawaay gis nañu seen pas-pas gis nañu coono bi leen fekk fii ci dëkk bi ngeen muñ ko ak xol bu sedd di ci liggéey ak courage ak abnégation yal na yàlla fay leen. lii la ab Ablaye la bëggoon ci yéen te mu ngi leen di sant bu baax na ngeen dolli góorgóorlu sëñ Tuubaa loo ko liggéey rek xeeb ko loo liggéeyal sëñ Tuubaa na ko xeeb ndax sëñ Tuubaa bu la fayee di nga xam ne la nga doon def jaroon na ko. suñ Tuubaa ku mu fay nga xam ne la mu la nga doon def jaroon na ko yal na yàlla fayal leen angle la ñeent tal croisement la tali yëpp ñoo fi ñoo fi convergé tali bu fi convergé rek defar nañ ko ba mën nga jël ci mbedd bu la ci neex jàdd te dara du la gàllankoor euh, bërëb sëriñ yu bëri dañu amoon ay jafe-jafe ci ci remblai euh, lañ fa yóbbu ci ay camion remblai ëpp na ñaari téeméeri sars yaa ngi dégg jàkk jàkk bi ma doon wax sëñ bi ndox mi nangu woon ko defar nañ ko remblé nañ ko terrassé nañ ko waaw daaru tanzil loolu toirkal la alxam man dem naa fa gis naa na mu meloon euh, mu nekkoon lu yéeme yaa ngi dégg ñu liggéey ko bi ma dellusee sama xol sedd na ci lañ nañ ko liggéey résidence waaw bu daaru ma naan defar nañ ko ba tubarkal euh, mbedd bi nga xamante ne moo nekk ci gannaaw euh, juma euh, sëñ Béthio bi ndax dafa amoon ay jafe-jafe duñ ceinture nañ ko defaraat ko ba oto yi mën nañu dem nu mu leen neex yaa ngi dégg loolu lépp ay point point la yoo xamante ni sëñ bi yitte woon na ko lool pour ñu taxaw si yàlla dimbali nañ si li muy jafe-jafe lépp yàlla mel nañ ci ay ndam loolu euh, mooy li nga xamante ne doo bëggoon naa ko ci dolli pour mu mu gën a leer.